bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf alambiyaai walmursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi ajmain amma baad noo ngi sant sunu boroom yàlla di delsi ci sunu bindub tey ci téere bu màgg bi di alquraanul karim xam ngeen ne jataay bi nga xam ne wala jataay bee nga xam ne moom lañu jàll noo ngi ci biir suuratu nuur noo ngi woon ci biir suuratu nuur tollu woon fi sunu borom subhaanahu wa taala doon leerale ku soxnaam tabbi ci bàkkaarub njaalo wala yaasu billahi taala te moom mi nga xam ne mooy boroom këram wax ne daal daa njaalo ndax ëmb bi nga xam ne moom la soxna si yore moom bàyyi kowul ci moom leeraloon itam atte yi ci sunu borom subhanahu wa taala atte yelloon tena julit ñi di atte woo atte sunu borom bi subhanahu wa taala bi yàlla di tëj mu ne sudur koo nag nga neelul yàlla ak yërmandeem kon dana deme ne neen dañoo dagg jawaab ja kon ngëneelul yàlla ak yërmandeem moote ngeen tabbi ci ay coono yu mag a mag a mag yoo xam ne du ngeen ko attan waaye itam ngeen xam ne sunu borom baale xaa kon la waaye ku xereñ la itam moo tax mu tëral atte yi ku mën a baale la itam ànd ak ne nit mën naa weddi ca mbooloo ma ne tabiwuma ci bakkaarum njaalo jóge fa tuub diggam ak boroom tuub gu sell yàlla itam baal ko waaye li nga xam ne moom mooy atte yi nga xam ne moom la sharia tëral moom noonu la tëdde tey ji incha allahu taala dañuy tàmbalee ci inna alladina jaa'u bil ifki usbatum minkum su ko defee li ci aju da nga xam ne dañ koy fekk ci ahadis yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy def mu nekk sunu jataay suñu delsuwaatee door a ñëw nag ci ayaat yi nga xam ne moom la sunu boroom subhaanahu wa taala leeral xam ngeen ne nattu sunu boroom yàlla da koy faral di wàcce di ko jëme ci ay soppeem sunu yaay Aïcha mi nga xam ne soxna la woon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar duñu werante ci ne ku yonente bi bëggoon la sallallahu alayhi wa sallam waaye ñaar itam duñu werante ci ne ku mokkaloon lu baree baree bari la ci ahadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon lu kenn werantewul surya Aisha moomi moo nuy nettali ndax li dale moom la dal neena kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida araada an yaxruja safaran aqraca bayna nisaa'i fa ayatuhunna xaraja sahmuha xaraja biha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa mu ne bokkoon na ci li yonent yàlla Muhammad baaxoo mooy bu masaana bëgg a tukki su masaana bëgg a tukki day dajale ay soxnaam ne leen man kat damay tukki léegi nag dama bëggoon ñu tegoo bant ku bant bi dal ci kawam nga génn nu ànd ndax soxna yi nga xam ne da nga leen yor tukki bi nga xam ne danga ko war a tukki kenn ku nekk ci ñoom da caa am ak ci war a ànd ak yow te mënoo jiital kenn bàyyi kenn ngir ak maandu li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def rek moo la ci mën a génne sunu yaay Aisha nee na fa aqraa baynana fi ghazwatin ghazaha fa xaraja fiha sahmi wa xarajtu maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa dalika ba'dama unzila alxijaab nee na biñ tegoo bant yàlla dogal bant bi dal ci sama kaw ma daal di génn ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam booba nag fekk na yàlla wàcce na alxijaab maanaam ni jigéenu jullit di muuro laay ji koy wax ba tax jigéen ña di ko jëfe fekk na booba laay jooja wàcc na li li Aisha wax nag daa am lu luy feeñ ca kanam loo xam ne xam naa bokk na ci li tax mu ne baada ma unzila alxijaabu mu ne fa ana uxmalu fi hawdaji léeg-léeg nettali ci biir wax ji loo xam ne dañuy dem ba ci biir wax ja ñu xam la na tax nga doon wax la nga doon wax ca njëlbeen nga du mën a ñàkk Aïcha nee na booba dañ may sëf ci ak jaagaajal ana amoon na ca bawoon lu ñuy teg ci kaw gëléem gi luy sof am mbaar nee na foofa laa nekkoon diiru tukki bi nga xam dañ ma fay sëf dañ ma caa sëf ma nekk ca biir suñu demee ba yàlla dogal nu àgg ci barab ab daluwaay dañ may wàcc loolu nag noonu la nu nekke mboolem tukki bi xata ida faraga rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min gaswihi wa qafala wa danawna min almadina aadana layla birraxil fa qumtu xiina aadanu birraxil fa mashaytu xata jaawastu aljeysha falamma qadaytu sha'ni aqbaltu ila arraxli falamastu sadri fa ida ciqdun min jizcin min jizci difaar qad inqataa فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه sunu yaay Aïcha radiyallahu anha nee na bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee ci xeex boobu nga xam ne tudd ko waaye mooy Zaatul Muraysi' wala gaswatu ba gaswatu Banil Mustaliq boobu xeex boobu xeex la woon bi yonent Yàlla Muhammad noppee ci xeex boobu bay ñibbi am yi wàññeeku biñ jegee ba jegee biñ ñëwee ba jege dëkk bi Madina nee na xam nga noppalu woon nañ ci yoon wi wala doon nañ dox ba yàgg ñuy dallu mu daal di am genn guddi goo xam ne daa wax ne nañu daal di jug. nee na ñu daal di jug ma jug ma daal di dox ba romb lël bi maanaam mbooloom xare mi ànd dem naa ba romb leen fekk booba ci saa yitte laa nekk bi ma noppee ci saa yitte ma daal di ñëwaat ci dal bi làmbu saa dënn bi ndekete am na ab caq boo xam ne man maa ko takkoon mu bàyyi koon ci pemey zifaar ndekete dagg na waaye gannaaw moom du mag gone la te léeg-léeg gone dana jëf léeg-léeg loo xam ne da ngay xam xel ne lii doon gim doon gone moo ko ci dugal moo ko ko tax a def nee na ma daa di dem wari ko dama làmbu saa baat bi ndekete saa jàq ba dagg na ma daa di fas yéene seeti jàq bi nee na baa koy seet nag bàyyi seeti càq bi nag fa xabasani bitighaahu maanaam wër gi ma ko doon wër ak sàkku gi ma ko doon sàkku loola gàllankoor na ma ba nga xam ne ndekete mbooloo mi nga xam ne ñoom lañ santoon saa buñ waree dem ñoom ñooy ñëw jël jaagaa jël ji teg ko ci kaw gileem gi ñoom dañoo ñëw rek jël ko teg ko ci kaw gileem gi ndax jàppoon nañ ne maa nga ca biir Aïcha daal di layal loolu ne wa kaana nisaau iddaaka xifaafan nee na jamono jooja jigéen ñi dañoo woyof booba lekk lekk lekk ba saw yaram di diis loola amutoon ah moo tax ñoom biñ ñëwee biñ yëkkatee jaagaajal gi di ko teg ci kaw dégg nga gëléem gi ñàkk gi ñàkk a diis loola moom yëguñu ko falam yastankir alqawma fiqalal hawdaj xina raxaluhu wa rafacuhu te nee na booba itam man gone laa ndax booba su may at bariwut wa kuntu jaariyatan xadisata sinni ñu daal di jàpp ne maa ngi ci gëléem gi maa ngi ci kaw gëléem gi loolu lañ jàpp ñu daal di dox daal di dem nee na ñu dem lu yàgg a yàgg ma nekk ca saa ceet ma rek di seet di seet di seet ba yàlla dogal ma gis càq ba bi ma ñëwee ndekete ñëpp dem nañ bi ma ñëwee ba ci barab bi nga xam ne fi lañ daloon wala si biha daain wala mujib kuy woote wala kuy wuyu sax nekk fo ma daal di nag jëfandikoo saam xel mooy fi nga xam ne fi lañ ma bàyyi woon bëgguma demaat feneen ñu may seet duñ ma gis fa tayamamtu manzili alladi kuntu fihi wa zanantu anna alqawma sa yafqiduni dégg nga man jortoon naa ne danañ ma seet te buñ may seet itam xam naa ne fañ ma mujj a gisee dongo lañ may seet loolu moo tax foofu laa dekk fa baynama ana jaalisatun fi manzili galabatni ayni fa nimtu loolu ci xéewal yàlla yi la bokk barab bu raglu barab bu tiitlu yàlla nelawal la fa da lay dimbale nelaw yooyu daf lay dimbale bu dul ko nag loolu daanaka tiit mi day day yokk rek ndax fu nekk da nga fay xiin xiini fu ne nga xool fa yaakaar ne lu ne mën naa ñëw mën naa am sax muy barab boo xam ne si rabi àll ya ña ngay sap loola di la gën a yokk am tiit waaye ne damaa nelaw fekk Safwaan ibn Mu'attil as-Sulami yàlla daa dogal moom naka jekk bu masaana ànd ak ab lël itam moom mooy mujj moom mooy mujj ne ñu daa mënoon a nelaw di yeex yeewu moo mujj yàlla sama borom dogal mu daa di jug di dox di dox ba seen jenn jëmm juy nelaw mu daa di ñëw ba tiim ma daa di may xam bi ma gisee rek la ma xam mu ne waxad kaana yaraani qabla an yudraba alayhi alxijaab moom daana ma gis bi nga xamee ne sunu borom dogalugut ci nun bi nga xamee ne sunu borom yàlla santaguñu ñuy def xijaab booba daana ma gis waaye bokk na ci muwaafaqaatu Seydina Omar mu ne kër gi daal ñu baax dañ fi dugg ñu baaxul di fi dugg ak a neexoon ñu santaane xijaab sun borom ne wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min warai xijaab bokk na ci muwaafaqaatu Umar nee na bi ma yeewoo inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna laa yennoo laa yeewoo wastayqastu bistirjaacihi xiina arafani bi ma xamee rek dama yeewu new dégg nga ay am na ma daal di muur sama xar kanam gi fa xamartu wajhi bi jilbaab bi jilbaab bi ma soloon moom laa muuree sama xar kanam gi bar ba ngir bañ moo xàmmee ma waaye fekk na xam na ko ba noppi bu daal ci teg moom sunu yaay Aïcha ne wallahi ma kallamani kalima wala sami'tu minhu kalima ghayra ghayra istirja'ihi ah maa ngi doon jum soxna na Aïcha moo wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaye safaana ko wax nee na wax gi mu ko wax ci laa yeewoo loolu na bokk na ci lu am solo lu safwaan def mooy bañ a yee jigéen di ko laal ñu bari bari buñ fekkoon ab jaamur bu jigéen buy nelaw ci àll dégg nga boo moytuwul danañ ko téye jàpp ko ñoddi ko wala ñu dóor ko te loolu mën naa ñàkk ndax mën ngaa fexe ba mu yeewu te doo ko laal mën ngaa fexe ba mu yeewu te doo ko laal ci sàmmuk safwaan nee na Aïcha nee na wallahi waxut ak man sax benn baat dégguma ci moom benn baat xanaa istirja bi mu def xataa ana xaraa xilatahu ba ni mu yësole gëleemam gi nee na ma daa di yéeg ci kiileem gi mu daa di ànd ak man jiital gëleem gi ba niñ fekke lël bi mu fekk boobu wàcce nañ ci benn barab biñ ma gisee gis Safwaan xel yi daa tàmbale ñaaw seytaane tàmbali dugg ci xel yi naan leen am na lu xew am na lu xew ndax kii nga xam ne du mag wax dëgg yàlla ay atam bariwut ba noppi Safwaan mi di góor waroon a ànd ci mbooloo mi ñoom ñaar ñëpp ñu ñëw nii nii nii nii nii tembe nii rek lii daal am na lu xew daal boobee nag nee na ka ka féetewoo mbir ma dëgg-dëgg nga xam ne bu tasaaroo moo ko tas mooy ka ñuy wax Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul laanatullahi alayhi moo jiite mbir mépp alxuraan nee na walladi tawalla kibrahu minhum lahu adabun azim nee na man ndekete loolu coow loolu bàyyi naa ko ci biir mbooloo mi xel yaar te itam ay nit dong lañ nag ay nit dong lañ santal yàlla bam la bam la bam la fa fekkul tax mënoon na la fa fekk ba noppi li dal ñëpp dal la waaw ci misaal xaaju guddi tey jii jigéen joo xam ne si da doon jëndi ci boutique far yàlla dogal mu dem borom bitig ba tëj mu am ngant biiram ba di metti mu farta dafa farteela fa waaye ba xaaju guddi mu yeewu nekk te ñëpp dem nañ ab xale bu góor di ko indi nekk foo dëkk mu ne ko maa ngi dëkk fee mu ànd ak moom di ko indi ba agsi fëgg ñu ubbil ko mu ne kii dama ko fekkoon fee mu nelaw ma indi ko daa dem fi mu toll nii dem googu mu dem noonu day indi jafe-jafe ndax kenn du xam dëgg-dëgg lii lan la woon te itam jigéen ji ngir mu wax loo xam ne luñ mën a teg loxo la dëggal ko dana xaw a jafe lool ci moom yàlla rek ko mën a seetal. Aïcha nee na ñu ñëw Madina ma daal di tawat tawat naa weer weer woo xam ne dama nekk ci tawat nekkete nit ñi weer woo ma nekk ci tawat ñi ngi ci saay mbir dégg nga man yëguma ci dara. waaye nag nee na bokk na ci li nga xam ne xawoon naa cee xel yaar tuuti mooy am na xeetu soppeeku gu ma gis ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na xeetu ñeewante gu ma miinoon ci moom goo xam ne wax dëgg yàlla gisatuma ko bu ñëwee daal dana ma nuyu daa ne kay fatiikum daa dem du fa nekk di masla comme ni nga xamee noonu la ko daan defee ak ni mu ko bëggee loola nag wax dëgg yàlla xawoon naa indi ci man ay xel yaar waaye laa ashuru bi sharri benn bis bi ma yàlla dogalee bi yàlla dogalee ci man ma tane xataa xarajtu baadama naqixtu naqixtu mooy nga jóge ci tawat ju yees di soog a wér di sa yaram yi di mel noonu wa xarajat ma'i ummu mista nee na bi may génn maa ngi ànd ak koo xam ne ndey la ci mista booba dañ doon dem gannaaw kër booba dañ daan dem gannaaw kër ndax waaye woon ak amutoon guddi lañ daan dem dañ daan bàyyi bu guddi ñu ànd dem mu ne waqa wa dalika qabla an nattaxida al kunuf qariban min buyutina ndax sunu wana yii nii dëgg la am nay jamono sax ñu wut ko waaye maanaa booba indi wuñ ko woon ci biir kër yi maanaa def indi so tabax nañ ko daal fu jege sunuy kër waaye bi jamono yii moom wana ya maanaam jegewutoon kër yi moo tax dañ daan dem ginnaaw kër lañ daan dem mag ñi naan ginnaaw kër dafa dem diw daa daa dem ginnaaw kër noonu moo nekkoon sunu mbir jamono jooja ndax jël wa nag di ko tabax ci kër daal loolu loolu danoo xawoon a gêné daal loolu daal dañ cee yëgoon lool xat wa kunna nataadda bil kunufi an nattaxidaha fi buyutina nee na ma daal di ànd ak umu misax doom ju jigéen la ci abu rahmum nu almutalib ibnu abdul manaf ndayam nekk di doom ci sax doom ju jigéen ci saxrum nu amir yaa yaay ju ndaw la ci abubakar as-siddiq doomam mooy misax ibnu usaasa ibnu ubaadum lu mutalib nee na bi ñu noppee bay ñibbisi ummi sax tànkam fakkastalu ci yére bi mu soloon mu daane taisa mistax mistax day torox na alkuna ma ne ko bi sama qulti li nga wax aka bon ta subbina rajulan qad shahida badran dangay ngaañi nit koo xam ne tey woon na badar mu ne ma ay hanta alam tasma'i ma qaal ndeysaan ay gore ndeysaan xanaa kon yëgoo li mu wax ma ne ko wa maada qaala mu daal di may wax li waa dëkk bi di wax ci man ahlul ifki ñi nga xam ne ñooma duural ñooma sosol li ñuy wax ci man mu daal di ma ko wax nee na fasdattu maradan ila maradi ma daal di yokk dégg nga tawat yokkuwaat ci saa tawat ja ma yëgaat ne daal dama tawat bi ma ñëwee ci kër gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ma ci néeg bi nuyu ma daa ne kay fatikum daa di dem nee na ma daa di ne daal xaw ma def ay pexe damay tàggo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem seedi sama ñaari wayjur jigéen léeg-léeg ci ni ko yàlla binde ak ni mu amee ay pexe ngir bëgg a xam benn mbir dana ko jaral yu muy def yoo xam ne si jubluwu ci lu may di la xoolaale waaye mën na caa am itam beneen jubluwaay ndax dañoo naqare xam ñoom nee na booba nag li ma jublu woon rek mooy dama bëgg a wóorliku ndax ñoom ñaar li ma nit ñi waxal ndax ñoom ñaar yëg nañ ko wala yëguñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal may jox ndigal ne mën ngaa dem ma daal di ñëw ci sama ñaari waajur daal di wax sama yaay ne ko yaa ummata ma ma yataxaddasu nnaas lan la nit ñi di wax mu ne ma ay bunayya hawwini alayk bu rey sa bopp wallahi la qallama kanat kanat imra'atun qattu wadi'a inda rajulin yuhibbuha wa laha dara'ir illa aktharna alayha ne ma jigéen su ko yàlla maye taar góor gu ko bëgg yor ko te góor googu yorandoo ko ak yeneen i jigéen ñooña doon ay yujam li ci bari rek danañ wax ci moom ma daan ne subhanallah ah kon nit ñaa ngi wax ci man nee na guddi googu yépp dama ko jooy ba ni ma dama dama dama fanaane jooy guddi googu yépp dama fanaane jooy ba sama ronkoñ yi dama simbo ay ronkoñ mana deseetuma sax ak ronkoñ laa yarqa uli dam'un wala ak taxilu bi naw min ma xëyati di jooya di waat yonent yàlla Muhammad daa di woo Seydina Ali woo Usaamatu bnu Zayd ndax booba wax wi dafa taxaw te lépp lu ñuy xam rawatina loo xam ne xaybu la wax yu mooy ñëw wax ko bu dul loolu yonent yàlla Muhammad moom ñëpp ñoo yam ci ñàkk xam xaybu loole tax yonent yàlla Muhammad woo Ali woo Usaama yastashiruhuma fi firaaqi ahlihi maanaam di diisoo ak ñoom pour daal ndax daf may bàyyi wala duma bàyyi ndax daal gannaaw coow li bari na ci dëkk bi nit ñaa ngi wax naan maanaa daa am koo xam ne dama seq ak moom te man sequma kenn dara ah mu woo leen ñoom ñaar di diisoo ak ñoom gis ngeen sallallahu alayhi wasallam bu amee lenn loo xam ne lu xaw a kii ci moom la dana am ñu mu woo di di so ñi mu woo nag ñu xam mbir mi la ndax nit itam bu amee lu xew këram bu mu wooyi ñoo xam ne si dëkkuñ ci kër gi donte ñooñu ay xaritam lañ di leen laaj lu xew ci kër gi ndax boo fi wooyee sàmm moo xam ne moom saa bu xëyee ma nga ca ay saakoom woo dem ba moo xam ne sax bu xëyee ma nga ca ay nagam am jafe-jafe bu am su biir kër ga woo bu ñëwee dañ koy kii rek yëf yi far yem fa benn yoon da ngay woo ñoo xam ne ñi ngi woon ci kër gi mbaa kër gi soriwuñ kër gi nga xam liy xew ci kër gi dañ koy faral di xam ñooñu ngay woo diisoo ak ñoom nee na Aïcha mooy wax de bu dee Usaama ibn Zayd moom daal dinay wax sallallahu alayhi wa sallam ne ko man daal li ma xamoon démb moom laay wax tey Aïcha lu baax laa xam ci moom maanaam ak bëgg laa xam ci moom waaw xam naa itam ne ko bëgg la ne ko yaa rasulullah hum ahluk ñi so waa kër lañ wala na'lamu illa xayran lu baax dog lañ xam ci ñoom bu dee Ali ibn Abi Talib nag daa Aïcha nee na dane sallallahu alayhi wasallam lam yudayiq illahu alayk wa nisaa'u siwaha kathir wax dëgg yàlla nag yàlla xatalu yàlla xatalut de te itam ndegam yaa ngi sikki saaka daa maa yaribuka illa ila ma la yaribuka loolu lañ jànge ci yow yeneen jigéen ñaa ngi fi mën ngaa ba mën ngaa mën ngaa mën ngaa takk keneen koo xam ne si doo doo ci am sikki saak loolu nag xawoon naa am lu mu indi sun diggante sunu yaay Aïcha ak Seydina Ali ci moom it wax dëgg yàlla moom ni mu gisee rek la waxee maanaam gannaaw yonent bi mi ngi sikki sàkk te xamul mbir yi nu mu demee mu ne ko ah jigéen ñeneen ñi ngi fi ne ko nag léegi jaari bii nekk ci biir kër gi muy jibeer bii nekk ci kër gi bu doon jamono ji mbindaan mi nekk ci kër gi da nga koy laaj moom wa in tasalil jaariyata dégg nga tusaddiq kel xabar Aïcha nee na yent yàlla Muhammad daal di woo Barira Barira Aïcha ko yilifoon daa ne ko ay Barira hal ra'ayti min shay'in yaribuka min Aïcha ndax gisoo dara dara loo xam ne si daal tax na sa xel teey ci sunu yaay Aïcha Barira daan ne daan ne walladi ba'athaka bil haqqi in ra'aytu alayha amran qattu aghmisuhu alayha walaay gisuma ci moom lenn loo xam ne lu ma ko mën a sikkale la li ma xam daal moom mooy gone la xam naa ne gone la ndax léeg-léeg fii muy mooñ ba yàgg muy nelaw ci dégg nga bu doon jamono ji da nga naan lan ñuy mooñ lu ñu mooñe ah waaw man naam mu léeg-léeg day mooñ ba yàgg mu nekk ci di muy nelaw far benn yoon loolu ak ak ngone ngone gi nekk ci moom moo koy def loo tanaa moo an ajini aliha nga xam ne léeg-léeg nee na ay ganaar sax dañuy ñëw di cof di ci cof a yëw ji dara loolu li muy tekk mooy moom xaafila la di alquran nan inna alladina yarmuna almuhsanat alxaafilaat xaafilaat mooy koo xam ne yëgul lu gaar géedéer maanaam jigéen joo xam ne daanaka xamul lu gaar géedéer sallallahu alayhi wa sallam daa di ñëw bisub aljuma ci kaw minbar ba mu ne yaa ma'shar al muslimin man ya'dhuruni min rajulin qad balaghani adaahu fi ahli bayti kan ci yéen moo may dogalal ngant ci waajoo xam ne nee nañ ma am na lum def jëme ko ci sama kër wallahi man saa waa kër lu baax rek laa xam ci ñoom loolu yéen bi wax loolu bis bu ajuma la ko wax ci kaw min barba dégg nga te itam wa ma kaana yadxulu ala ahli illa ma'i wa bee nag la Saad ibn Muaaz jug moom kenn la woon ci lansaari daan ne ko ana a'dhuruka minhu ya rasulallah léegi kii nga xam ne moo wax lii bu fekkee daa bokk ci al aws ngir gi ñu wax al aws maanaam dang nuy wax kan la ci ñu dagg ak doqam su fekkee daa bokk ci sunu mbokk yi nag nga xam ne ci waa Xasraj la bokk amartana fa faal na amraka nga digal nu lang nu digal nu def ko xam nga moom ni mu waxee bu bokkee ci sunu mbokk yi awsu yii nii ñu dagg doq gi te bu bokkee ci sunu mbokk yi azra Xasraj mu xam ab Xasraj ji la lang nu ca wax la ni def wax jooju itam daa xaw a ñagas loola bam ko waxee Saad ibn Saad ibn Ubaada moo nekkoon sangub al-Xasraj jamono jooju waa ju baax la woon waaye jamono jii nii nii nii nii tembe bi mu déggee kàddu gi moom am na lu ko dal ihtamalatul hamiya mu daal di wax Saad ibn Muaaz ne ko la amrullahi la taqtulhu la taqtulhu wala taqdiru ala qatlihi waaw waat naa ko ci sunu borom yàlla ne mënoo koo rey waaw danga ko mënta rey ah looy wax nii moom fàtte na sax ne am na lu gën a rëy loo xam ne moom lañ bëgg ñu lijjanti ko waaye bu leen fàtte ne al aws wal xasra ci seen diggante laataa lislaam laataa yonent yàlla di fi ñëw am na yu fa xewoon maanaam deret yi xaw a yëngu tuuti daal mu ne ko nag lii nga wax nii waroo ko wax dégg nga bi mu waxee loolu ba àggal Usayd ibn Xudayr Usayd ibn Xudayr moom tam doomu bàyyi taxu Saad ibn Muaz la daa di wax Saad ibn Ubaada mi wax li mu wax ne ko kadabta waaw kadabta li nga wax du dëgg la amrullahi la naqtulannahu noo ngi waat ci sunu borom yàlla ne rey lan koy def yow naafiq nga fa innaka munaafiqun tujaadilu an almunaafiqin waaw fa tasaawara alxayaani al aws wal xasraj xatta hammu an yaqtatilu tuut ñu rayante ci biir jàkka yi al aws wal xasraj seen dëng daan nay tàng léegi xoola seytaane moom tam liggéey bu mag boobu nga xam ne def na ko foofu ci biir jàkk ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi taxaw ci minbar bi waaye mi ngi naan dee na wàññi leen kàddu yi wàññi leen kàddu yi falam yazal rasulullahi yuxfiduhum xatta sakatu ba niñ noppee no lu mën a xew rek bàyyi leen kàddu yi noppi leen noppi leen noppi leen ba ak noppi am yonent yàlla Muhammad moom itam daal di noppi Aïcha nee na bis boobu yépp dama ko jooy sama ñaari waajur moom defoon nañ ne jooya may rey benn bis daal dégg nga ñoom ñaar mooy sama ñaari waajur ñi ngi toog fi man fekk maa ngi jooy jenn jigéen daa di yëglu sama yaay ne ko mën naa jàll si moom itam mu ñëw di jooy saa wet mu ñëw di jooy saa wet xam naa ne di ma jooy la daal di wane ne naqar yu ma am am na ko far yàlla dogal yonte yàlla Muhammad na jaleñ sallallahu alayhi wa sallam na jaleñ ci biir kër gi daa di nuyoo daa di toog bi mu toogee itam tuugut saawet ndax moom bi bi fi tàmbalee sik sàkk yi tàmbalee am nii moo wax dëgg yàlla na na na ma jàpp woon dafa dafa xaw a kii tam moom mi ndeef la itam nag innama ana basharu mislukum yuuxa ilayya te jamono ji moom yàlla wax yoogu ko moo tax bi mu ñëwee tuugu saawet sa fee dafa toog fële Aïcha li muy doon doon ku am naqar teewut mi mi ngi yëg loolu mi nga xam ne sallallahu alayhi wasallam mi li mu koy bëgg-bëgg ah gannaaw sikk sàkka mi ngi koy am ci ay biram nee na daal mi mu ñëwee toogut nee na am na weer woo xam ne laa yuuxaa ilayhi fi sha'ni shay man ci saay biir dara la ci yàlla waxut yonte yàlla Muhammad daa di toog daa ne amma baad yaa Aïcha daal may woo ne ma qad balagani anki kada wa kada wax nañ ci yow ay wax nee nañ nangam nee nañ nangam nee nañ nangam ah fa in kunti bari'a fa sayubarri fa sayubarri uki llah fekkee ne dara laloo ci laale woo ci lii ñuy wax dara yàlla ci boppam dana la setal wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillah su dee nag dangaa laal ci yëf yi def bàkkaar ay jéem a jégalu suñu borom yàlla suñu borom yàlla moom ab jaam bu defee bàkkaar ba noppi tuub yàlla dana ko jégal fa inna al abda ida atarafa bi danbin summa taaba taaba allahu alayhi qaalat Aïcha nee na yonente yàlla Muhammad bi mu noppee ci kàddoom yii nii maana ay jooy laa tonto ay jooy laa tonto maanaam keroog nee na jooy naa jooy ba yëgatuma ne am naa ak ronkoñ dama jàpp ne amatuma ronkoñ loolu laa jàpp mala jox sama baay ne ko ajib anni rasulallah tontul ma yonte bi sallallahu alayhi wasallam tontul ma ko mënuma ko tontu tontul ma yonte yàlla muhammad abubakar itam daane wallahi ma adri ma aqulu li rasul wallahi man xawma lan lay wax sallallahu alayhi wasallam moo bi ngi toog ci kër gi mala wax sama yaay ne ko ajibi anni rasulallah kon yow yaay tontul ma yonte yàlla Muhammad mu ne ma wallahi ma adri ma aqul li rasulillah xawma lan laa koy wax ah xawma lan laay wax sallallahu alayhi wasallam Abubakar li muy baax baax baax moom tam gis nga nee na man xawma lan laay wax sallallahu alayhi wasallam nee na Aïcha nee na man boobu li ma mokkal ci alxuraan bariwut waaye daan naay wax ne wallahi laqad caraftu annakum qad samictum bi hada xata staqarra fi anfusikum wa saddaqtum bi wala in qultu lakum inni baria wallahu yaclamu anni baria la tusaddiquni bidalik wala in ictaraftu lakum bi amrin wallahu azza wa jalla yaclamu anni baria tusaddiquni wallahi la ajidu wa inni la wallahi ma ajidu li walakum mathalan illa kama qaala abu yusuf fa sabrun jamil wallahu almustaanu ala ma tasifun Aisha nee na ma daal di wax nag sama baay wax sama yaay wax sallallahu alayhi wa sallam ci boppam ne leen li ma wóor te wér ma mooy dégg ngeen mbir mi ñu di ko wax di ma joobeek ba fi mu toll nii tembe loolu am na lu mu def ci yéen li ngeen dégg am na lu mu def ci yéen dëggal ngeen ko itam nag te wallahi su fekkee ne damaa wax ne set naa te yàlla xam na ne set naa du ngeen ma dëggal su ma toogoon fii ne leen set naa laalu ma ci mbir mi dara maanaam coow li ni mu bëree tax na du ngeen ma dëggal te itam nag su fekkee ne damaa nangu mbir moo xam ne yàlla xam na ne dama caa set itam loolu jaaduwut ci man du ngeen ma da ngeen may dëggal su ma fi nangoo loo xam ne si dégg nga ma xam naa ne rek bëgg caa bëgg rek coow li jeex moo tax ma di ko nangu tam yàlla xam ne ne loola laalu ma ci dara mën naa am ngeen du saddiquni ñeen ne ma maanaa waaw kon wax nga dëgg naa nga mën a daane man fi mu toll nii tamit aw ma lenn lu ma leen mën a wax lu may xanaa lenn mooy la Yuusuf waxoon la Yaquba waxoon keroog ba nga xamee ne doomam ja Yuusuf dégg nga ma ñàkk na ko ñu waxati mu ñàkkaat jeneen doom ja ja des mu ne daal fa sabrun jamil mu daal fi mu toll nii ci muñ ko rafet daal lay def wallahu almustaanu ala ma tasifun Aïcha nee na ma daal di jug wutali saablal fas yéene tëdd ndax yenn jotaay yi moom daanaka jëratu ko fii ma toog nii sama baay mënumaa tontu sama yaay mënumaa tontu te itam man maanaam benn tontu ñaara am su ma nee maa def te defuma mën nañ koo nangu ñoom ci ne maa def te su fekkee ne itam damaa wax ne defuma te itam duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko jël. ma daa dem fas yéene tëddi waaw Aïcha nee na wallahi wa ana wallahi xiina idin alamu anni baria même bi may dem di tëdd maa gën a xam ne man laalu ma ci yëfi daara daara daara dara wa anna allaha mubarrii bi baraati yi xam naa itam ne yàlla moom nim baaxoo mooy dana ma setal walakin wallahi ma kuntu azunnu an yanzila fiya sha'ni waxyun yutla mosuma jortu mukk ne waxyu dana wàcc ci man maanaam saa mbir man maanaam man ni ma xeeboo jàpp ma woon ne mukk waxyu dana wàcc wala sha'ni kaana ahqara fi nafsi min an yatakallama allahu fiya bi amrin yutla man man ni ma jàppe woon sama bopp gënoon naa tuuti yàlla di wàcc ci man mbir mu ñuy jàng ci alquran loolu moom mosuma ko xalaat walakin kuntu arju an yara rasulullahi fi nawmi ruya yubarri'uni llahu biha man nag doon naa jàpp ne yonte bi bu amee lu may setal itam xëy na gént lee doon gu muy gént yeewu daan ne man gént naa ne Aïcha defut loolu laa yaakaaroon waaye nag yàlla ci boppam di wax ci man loolu moom musuma ko xalaat musuma ko xalaat gis nga itam lii mooy mooy jullit maanaam li muy baax baax moom jortul mukk ne yàlla dana wax ci moom fama baaloo ko ci koo xam ne jegewoo jegewoo jegewoo ba noppi defee ne maana yow nangam ak nangam jullit nii lay mel ah jullit nii lay mel dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg Aïcha nee na wallahi ma raama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min majlisihi raama yarimu la nag do ya do raama yarumu raama sàkku na yarumu ak raama yarimu bokkut ci la ko arab mana dañul raama yarimu dégg nga raama yarimu raama yarimu mooy mooy mooy mooy dañ dañ mazaala mooy maaraama mooy mazaala dañut ñu nga sallallahu alayhi laataa mu jóge ci jataay boobu laataa kenn di génn ci kër gi rek yàlla sun borom wàcce ne alquran wàcce na waxyu yonent yàlla muhammad nee na daal di tàmbali di yëg dégg nga métit ñaq wi di sotteeku ci xar kanam gi dégg nga mel ne jummaan periurus ni xar kanam bi ni mu rafetee su wax yu daan wàcc ci moom nga xam day ñàkk too xib nee nga bisub sedd guyu bis bu sedd ba noppi lool ba noppi muy ñàkk ngir diisaayu li nga xam ne mooy wàcc ci moom nee na bi yàlla sa borom dogalee nag li wàcc wàcc ci moom ba mu giif dafa tàmbali di reetaan moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na baat bi mu njëkk a wax mooy abshiri ya Aïcha la ma wax bégal yow Aïcha ama allahu faqad barraik yàlla ci boppam setal na la dégg nga sama yaay ne ma jugal jugal jugal jugal jugal jugal dem ci moom xuumi ilayhi ma ne ko jug itam diñu jigéen daan na ñëw fii jigéen dafa am num bindoo li am li li li li li li mbégtey am lépp lépp lépp lépp xaw naa am lu ma xaw a jàppalaale tuuti nag am na lu ma xaw a jàppalaale sallallahu alayhi wa sallam tuuti wallahi la aqumu ilayhi wala ahmadu illa allah juguma kat saanday juguma kat di dem ci moom te it santuma ko itam nag man sunu borom yàlla la sant waaw yàlla lay sant yàlla mi nga xam ne ak li may xeebu xeebu teewul mu wàcce ci man alxuraan ju ñuy jàng nee na ci la sunu borom yàlla wàcc ci man fukki laaya fukki laaya yoo xam ne si man dong la ci setal Seydina Abubakar moo daan dundal Mistah ndax doomu ndeyam la woon te daa ñàkkoon lool moom itam mu daal di cay jóg daal di wallahi la unfiqu alayhi shay'an abadan ba'da alladhi qala li Aisha duma ko joxati benn dërëm dara laa ko dul joxati ginnaaw bi nga xamee ne wax na ci sama sama doom ji lii mu ci wax nii suñu borom yàlla wàcce jërë laaye ne déet déet waay déet waay yow ku baax nga di ah borom ngëneel nga di gis nga nit ki nag lu mu baax baax gis nga te moo gën ci xeet wi kat sallallahu alayhi wasallam nee na moo gën ci xeet wi moom moom Abubakar mi waaye gis nga neewoon ne maanaam day daal di bàyyi lam daan def ci lu baax suñu borom ne wala ya'tali ulul fadli minkum wa sa'ati an yu'tu ulil qurba wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim Aïcha mooy nettali ba léegi nee na sallallahu alayhi wasallam ci biir natt bi ma daloon ni woona Zeynab bint Jahsh sama wujju la di ko laaj sa mbir ne ko yaa Zeynab ma ma alimti wala ma ra'ayti aw ma balaghiki yow yow loo xam bu doon suñ jamono ji koo xam ne si danga woo wujjam di ko laaj ci mbiram dana jox loo xam ne si weñ wucca dal dana am jafe-jafe waaw du ma ne dama mën naa bañ a dee waaye dana am jafe-jafe dégg nga nee na mu ne ma yaa rasulallah dégguma tëx naa gisuma wallahi ma alimtu illa xayra wallahi aisha mi lu baax dong dong laa xam ci moom li ñuy wax jiw ma koo dégg liñ bëgg ma gis ko itam jiw ma koo gis yow jigéen ji may dégg yow jigéen ji may dégg nii te am lu ñu wax ci sa wujj buñ la wooyee rikwaay melal ne sunu yaay Zeynab bint Jahsh lii nga xam ne moom la seedeel sunu yaay Aïcha ba Aïcha ndeysaan di ko waxaat ndax yëg na ko te kat Aïcha nee na wa hiya allati kaanat tusaamini min azwaaji nabi sallallahu alayhi wasallam moom dong dong dong dong moo doonoon jigéen joo xam ne si maanaa xaw xawma xawma ko ko woon a yóbbul ñun ñaar dañoo xawoon a neexoo te léeg-léeg day am ci ay soxna ñaar ñoo xam ne si ay soxna lañu waaye dañuy xaw a neexoo am na nañ am ci soxna yi soxna soxna soxna yi jot nañ xam ne kii moom moo leen moo leen gétti moom waaye na ci am ñoo xam ne dañ neexoo lu kii def ci kii rek keneen mën na koo def waaye ku mel noonu xam nga wax dëgg yàlla li tax Aïcha di tudd lii mooy kooku noonu day mel ne lii posé la woon ci moom ngir mu wàcce ko ne ko ah xam nga ne nag li ma daan waxee lii nangam ak nangam waaye loolu fekk ko ci Aïcha nee na fa asamaha allahu taala bil wara wara sàmm gum sàmm moo tax yàlla musal ko moo tax rakam ju jigéen ñi xam na tamit jax moom daan nay dugg ci sa mbir ba far yàlla dogal mu la la dal la dal la dal ñëpp dal ko ba ñuy duma waate duma nañ ko xam nga moom tam comme magam daa nekk ci kër gi faaw muy jéem a kii loolu ji dañ ko def waaw di di di di di di di jéem a kii daal waaw waaw mi nga di sot da doon sot kon mi ngi noonu lii mooy li nga xam ne insha allahu taala moo ñëw ci qissab sunu yaay Aïcha bi radiyallahu anha di qissa bu doy waar bu yéeme boo xam ne am na lu bare bare bare luñ ci mën a jàngate boo demee ci Zaadul Maad bu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala da nga fa fekk ay durus yu bare bare bare yoo ci mën a jariñoo waaye dañ ko bëggoon a jiital bala noo ñëw ci inna alladina jaa'u bil ifki usbatun minkum ci jataay bala di ñëw insha allahu taala ñaan yàlla mu defal nu ak nangu waaye mu defal nu itam tawfiq ci alquranul karim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh